baax di rafetlu seen teewaay di indi ay kàddu leeral ci lu bari ndax euh, jamono bii bi ñu gisee benn nataal génn ci internet bi euh, presse écrite bi am na nu mu ko commenté wax ci ay kàddu ba am na ñu bari sax dañ ko jël comme loo xam ne lu léger la loolu nag bëgg naa ci indi ay leeral bu baax a baax a baax parce que ñun lépp lu ñuy dugg dans la vie dañ ciy dugg ak suñu responsabilité ndax on n'a pas les mains liées ñu nga fa dugg le 10 mai 2017 nekk trésorier bi liggéey fa liggéey boo xamante ni euh, sama mbokk yi nga xam ne Pastef lañ nekkoon ñoom mën nañ cee wax lu baree bañ ñu dem ba mu yàgg. ni ñu gis ñi di ko doxee ñun gisatuñ suñu bopp ñu gis ne lu doxalin boo xam ne doxalin bu rafet la surtout Pastef Touba su fekkee leader bi la Ousmane Sonko jotewuñu ak moom dara seetuñu moom dara mosuñu lekk dërëmam dañu adhéré ci vision rek mais ñi ko représenté fii au niveau de Touba dañuy naxaate rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi li ñuy woote ak li ñuy def suuf dafa wuute c'est diamétralement opposé moo tax bi ma gisee ñu titré ne euh, Amady Diouf dafa quitté Pastef parce que le coordonnateur ko seetsiwul am ñu ne c'est léger mais bu fekkee ne le coordonnateur nekk na député ci lan ci effort boo xamante nii militants yi ñoom ñoo ko def ba placé fa foofu mu nekk honorable kooku il n'est pas n'importe qui lépp loo xam ne dal la ci kaw militants yi daf ko war a jël def ko mbiram man def naa kaso topp naa Pastef topp Pastef ba dugg ci kaso te pourtant ñi ma xam fii ci jotaay bi xam ma ci dëkk bi xam nañ ne je suis un enseignant un prof d'anglais di fi jàngale ci sama métier mosuma ci am benn problème mosuma def kaso Pastef moo ma yóbbu kaso kon Pastef bu taxee ma dem kaso bu ma génnee ñoom responsable yi ñu yëg ko war nañoo def dérangement déplacement ñëw seet si ma daan may ma saw parce que ànd bi nag àndu nawle la war a doon mais dafa mel ni li ma seetlu mooy bu lu metti li ñëwee ñu ne ñu dem leen ci kanam bu lu neex li ñëwee benn minorité jël ko coordonnateur jël ko wala mu bokkook adjoint wala ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dans le bureau te ñun ñu ëpp leen am njàng gisuma ñoom benn expérience bu ñu ëppale ndax man ça fait 19 ans que xam naa li may wax bu baax a baax ma gis nag doxin yooyu xeetu doxin yu ñaaw yooyu ànd boo xamante ni du ànd nawle ñu ngi exploiter nit ñi ñu ngi nax nit ñi bu ñu leen woowee téléphone du ñu jël soo leen yónnee message duñ la tontu loolu lu ànd boo xam ne ànd bu jaar yoon la militant yépp di ko ñaxtu waaye nit am na koy toll yaay jëlal sa bopp say responsabilité li tubaab di wax il existe un point au-delà duquel la résignation n'est plus possible am na foo xam ne boo ko yegsee muñ dafay jeex man nag moo tax ma jël samay responsabilité daal di quitter Pastef te awma ci benn regret nag waaw awma ci benn regret décision la boo xamante ni seet naa ba gis ne man moom a arrangé ndax gisatuma ko sama bopp parti la boo xamante ni parti ñett nit wala ñeent nit la ñoom ñooy décider seeni xalaat la nit ñuy wéyee man mënumaa bokk ci loolu waaw mënuma bokk ci loolu wax dëgg yàlla moo tax nag ma jël samay responsabilité bi ma jëlee samay responsabilité ne yàlla dem ma waxtaan ak Moussa Mbaye mu nekk jëmm ju baax Moussa Mbaye def ay taxawaay ba mettre ñu en rapport ak Mamadou Lamine Massaly Mamadou Lamine Massaly di responsable politique boo xam ne jàmbaar la mu ngi liggéeyal euh, président liggéey bu am solo di jàppale premier ministre di wane courage yu mu am di wane liggéeyam ba tax ñenn ñi di jóge fu ne di ñëw di adhéré di ko jaar ci moom ñun ñoo ànd la semaine passée premier ministre accordé ñu audience ñu gis ko toog waxtaan li Mouhamed mi wax lay dëggal premier ministre bu toogut ak moom mënoo koo xam bu toogee rek nga xam ne toog ak nit koo xam ne nit ku humble nit ku nite nit koo xam ne simplicité bi da nga koy remarqué lool sax nit koo xam ne ku bëgg réew mi ku am ambition ci réew mais ku mel noonu boo toogee moom mu waxtaan ak yow bëgg nga jàppale ko yow nga nekk sénégalais nekk un enseignant mais mënoo def lu nga jàppale ko parce que ñun on ba besoin de paix et de stabilité dans ce pays ñun ay jàngalekat lañ li ñu soxla mooy ñu jàngal nit ñu am xam-xam ñu defar seen comportement ba nekk nit yu nite mën a dund ci société bi ci jàmm ak salaam parce que jàmm fu mu amul xéewal mënu fa am jotaay boobu nag nekk jotaay boo xam ne mënatuñ koo fàtte moo tax nag ñu gën a sóobu gën a engagé wu leen di wax ne bépp effort boo xam ne doon naa ko def Pastef Touba dinaa ko def fii seen biir dina ma jaral lu nekk dinaa ci ñafe bu jaree dox dinaa ci dox bu jaree génne sa poste def ci dinaa ko def parce que Pastef nañ doon def di cotiser mën nañ koo def fii ba tey man gëm naa ne mën nañ ko def ñu jàppale Amadou Ba ñu jox ko sunu participation mu joxe caution am daal di jiite réew mi parce que jàpp naa ne keneen kuñ ko jox keneen kuñ ko jox liñ ci ko am moom nag am na yar bi discours bi wane na ko te nit ku dal la ndax ki mën a yilif nit ñi mooy koo xam ne day tolloore lu baree bari day xam ba pare war koo mën a saafara léegi bàyyi ci biir ndax kilifa wax nañ ne kilifa dafay yore jikkoy sunu borom di jéggale di yëngale. day xam li ñuy def lépp mu noppi di def li muy def ndànk-ndànk donc vraiment ñu gis sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa ni lii ci bëgg a wax lépp sax bari na waaye euh, dañuy tënk noonu kàddu yi rek bala ñuy pare nag dinañu wax ne euh, bi ñuy quitté Pastef man la trésorier man maa ko quitté man ak Saliou Wade chargé des élections moom nag Saliou Wade waroon na ñëw mais dafa am empêchement de dernière minute loolu moo tax ñëwul ah, vraiment ñu ngi koy masawu ci diisoo ko arrivé vraiment euh, di leen ziyaare bu baax a baax yéen ñëpp.